أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokki bàyyi xel seen chaîne YouTube bi di yaatal xeltuyin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ñi ngi am mbégte di ñëw yéen ci seen juróom-benneeli jotaay ci waxtaan yi ñu tudde waajal màggal di si safar tey nag ñu ngi ñëw ci as Cheikh Ahmad Bamba wa intajaatuhu al ilmiya muy Serigne Touba ak ay production intellectuelle yi nga xam ne def na ko muy taalif yi te li ci ëpp nag mu def ko ci lu jiitu muy woote mu def ko ci dunduk waajuram wi nga xam ne mooy Mamor Anta Sali ndaxte kenn ku ne xam na ne moom Serigne Touba bi muy am fanweeri at fekk na turam egg na fu ne ñépp xam ko te dara waralu ko lu dul li mu liggéey ci xam-xam muy ñi mu jàngal bari na lool li mu bind ci ay téere itam bari na lool ndax téere boobu ñuy wax muxtasarul axdar yi di jàngale al fiqh al ci la ko sëriñ tuuba waye jële ko ci ay wesar muy nasr def ko muy nazmu daldi koy tuddewaat jawharun nafis téere bu ñuy wax ummul barahin di jàngale tawxiid di téeréb al imaam as mu woy ko tudde ko Mawaahibul Quddus taarif na benn téere boo xam ne ci wàllu teggin lay wax al imaam ad-Dalhaaji taalif ko mu daldi koy jëlaat way ko yokkaat ci defaraat ko gën koo yore tudde ko nahju qadaa'il haaj tabaarakallaahu yooyu rek ci gàttal mën nañ koo tudd ci yoo xam ne bi mu koy def daanaka ci dunduk waajuram la waaye bi mu demee bay bëgg jege ñeent fukki at itam euh, ci la way téere boobu ñu tuddee xaatimatu tasawuf nga xam ne cheikh muhammad ibnu said al yadaali moo ko taalifoon mu indi ci itam ay iqtibaasaat ak ay njariñ yu bëree bëri yoo xam ne mu ngi jóge ci yeneeni téere comme lu mel ni ak ad ibris di téere tafsir ak junnatul murid bu boo xam ne junnatul murid téereb Cheikh Sidil Muxtaar al Kunti al Qadiri ak Ixyaau Ulumiddin bu imaamul Ghazali ak euh, alxikam boo xam ne euh, ki ko taalifoon mooy ibnu ataillah as-Sakandari waaye itam yeneeni njariñ yoo xam ne mu ngi jóge ci ay boroomi xam-xami tasawuf comme lu mel ne ki al cheikh abdul wahab al shaaraani ak al cheikh abil abbas ahmad ibnu ahmad ibnu muhammad zarruq ñoo ñépp rek tabaarakallaahu tibb na ci ñoom ay wax daal di koy boole ci benn téere bu wax boo xam ne mi ngi ko tuddee masaalikul naan waaye itam euh, taalif na benn téere boo xam ne ci wàllu tawxiid la ak fiqh ak tasawuf euh, loolu sax tabaarakallaahu mën nañ ne ay téere yu bari la yoo xam ne day boole tawxiid ak fiq ak tasawuf yu mel ne tazawudu sigaar lu mel ne ki jazbatu sigaar lu mel ne ki tazawudu shubaan lu mel ne ki mulayinu sudur wa mudakkiru lqubuur yépp tabaarakallaahu ay téere la yoo xam ne bind na ko ta du yem ci rek fekk téere bu ñu wesaroon mu way ko rek jël la ca nekkoon xarfan bi xarfin du ci yokk ci wàññi waaye léeg-léeg mu am lum ci leeral yokk ci dara walla mu wàññi ci dara wala mu jël position loo xam ne dañ ci werante mu ne li gën a wér mooy lii yooyu yépp yi mu def woon la tabaarakallaahu kon boo gisee tey ñu jël loolu Serigne Touba ak ay mbindam mooy ngir wax leen ni rek tëbul tëb rek di woote ci baatin fekk am na lu des ci zaahir waaye laata muy woote ci euh, euh, baatin fees na deli ci zaahir muy la mu war a jàng jàng na ko jàngal ñu bari bind itam ay téere yu bëree bëree bëree bëri nga xam ne kon day mel ne dafa njëkk a def yitte yittey zaahir ci jàng ak jàngale ak bind bañ xam ne nag dëgg-dëgg kii mat na sëkk ci xam-xam doonul kuy woote rek ci baatin bu lalwul ci xam-xam mu soog nag di woote ci baatin incha allah ñi ngi leen di jox ndaje ci beneen jotaay ci waxtaane màggal 18 safar ñi ngi taxawandi fii ci seen juróom-benneelu jotaay bi di leen woo bu baax ngeen di ñëw di abonné ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltiin di seedaan suñuy vidéo di ko commenter di ko aimer ak di ko gën a partager loolu day gën a tax waxtaan yi di gën a tasaaroo chaîne bi di gën a dund wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.